laqil lisaani waxlulan minhu lumuqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana al bil mustafa xayra shiyam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ja waa ëtt bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yokk siyaara waa xikmatul yawmi xaaju benn ba juróom ak bànqaas yi ci aju yëpp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 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo e, tukkee ci sunu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaan mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe bi yëpp xikma yi ñuy tàmbali nga xam dañ koy def ay xaaji xaaj ku ko mën a tasaare say mbokki taalibe itam nga def ko ku ko def yàlla na suñu borom dolli say xéewal bu baax a baax te dolli noo musal dolli noo noo aar ndax li ko waral mooy e, mawdu bi nga xam ne ni moom lañu bëgg a def ay xikma day tomb bu am solo muy eh, alhimmatul aliya te mooy yitte ju kawe yitte ju kawe nag dafay cëslaay ci yoonu murid maanaam maanaam mooy taxaw moo moo moo taxawal yoonu murid wala boog ci la sëriñ bi taxawalee yoonu murid ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul suñu borom tabaraka wa taala kon ñoo ngi ñaan ku ci jot ku nekk rek incha allahu nga tasaare ko am naa dañu ko def ay doggi dog bu ñu tàmbalee tey bu ëllëgee ñu indiwaat beneen ba keroog def ci suñu kamt laay kàttan ndax géej la te géej mënee su ko jeexal incha allah di sant mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi bu baax ci jàppale gi ñuy jàppale ñun waa Hikmatul mi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir gis nañ jàppale gi bu wér a wér wér ñi bokk ñi bokk ci jamhiya bi mooy association ak ñi ci bokkul nga xam ne nii nit ay defkati lu baax lañ rek ak ñu sàkkukati tiyaabo seen benn dërëm yeeg ñaar ñaari téeméer yeeg li ngeen ñu yónnee fi daara ji agsi moo ko fi indi te ñoo ngi leen di bégal ci ne daara ji yàggul waaye ñoo ngi xalaata yokkaat mm, ay barab yu gën a yaatu kon nag loola ak sant la ñoo ngi ci soññaate bi suñu bopp waaye di ci soññaat mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di leen xamal ne itam eh, ñi bokk ci jamhiya bi tey def seen dara ci liggéey bi ñoo ngi ñaan ñu yónnee ci whatsapp bu numéro Hikma bi seeni seen seeni vocal ku ci dugal dara wala kuy laaj dara nga yónnee whatsapp mooy gën a yomb sax woote bi léeg-léeg te whatsapp bu euh, numéro Hikma bi mooy 77 633 77 56 ku yónnee ci whatsapp bi incha allah mooy gën a gaaw ci ñu tontu soobee suñu borom ñoo leen di jaajëfal euh, Hikma bi ñu andi tey. te war koo tàmbali nga xam dañ ko def ay xaaji xaaj mooy alximma al aliya yitte ju kawe yitte ju kawe nag moo sos yoonu murit ndax su borom tabaraka wa taala moo yebal yonante bi sallallahu alayhi wa mu fekk sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor wax ko ne ko nag li nga nekk de lu baax la ndax sañ bi dafa donn ak mbaax donn alquran donn diine donn xam-xam donn ak sell wax nañ ne sax jamono boobu daana toppal ab dong alliwaam jum bind te xoolu ko muy beqi mu bind nisif wala robo sëriñ bi topp ko ba mu jeex te du ci gis benn yàq mu ne ko lii de lu baax la lu rëy la waaye am na lu ko gën a kawe buñ ko laajee ne ko waaw am na ndax am na lu gën a kawe li li gën a kawe li kon lu mu mu ne mooy nga fexe ba ba e, xalim ak suñu borom ko buy bind àtte nga dégg kii kii jami def loolu kon mooy la bi tekk mooy àgg ci yàlla ci la ko yónent bi sallallahu alayhi dikkale ne ko nag rabbi asaabaka bil himma nga xam ne baatub himma moom la jëfandikoo yaral gaa yi ci yitte wala tarbiyam bi dar si faqat bu leen yaral te ci njàngal njàngum kese kese kese kese kon boole ci yitte yitte ju kawe ca la wooyee ñu nekk ci daara ji ñëpp nag wax leen loolu yi ah daal wax na képp koo xam ne nag njàngum kese képp la fi andi ñuy jàngale bari nañ waaye koo xam ne nag yitte ju kawe jii ma yont bu wax ci nga bëgg ànd ak man ngir ñu àgg ci yàlla faw dangay jaayante ak man ñu ànd wuti yàlla moo tax ma rabbi asabak wala tarbiyam bi dar si wa rabbi kulli waahidin minhum bimaa yaliiqu bi yonent bi ne ko kenn ku nekk na nga ko na nga ko yar ca la yàlla ca moom ba waxee loolu daal nag kon nag képp ko àndoon ak man ngir njàngum kese yeewi naa la ko ànd ak man ngir àgg ci yàlla rek da jaayante ala man sahibana li ta'allumi faqat fal yartahil wa man arada ma aradna fal yubayi'ni wala yasri yi su ko defee la ëpp ca donk yi ñu ci bari dañoo dem lu néew des fa jaayante te mbir buy juddu te nar jëm karam noonu lay juddoo lislaam noonu la juddoo ci dina ko nettali sëñ la Lamine Diop Dagana ci Irwa un Nadim noonu la ko andee la ëpp dem la gën a néew rek des fa yitte jooju nag mosu caa jóg moom sëriñ bi ca la daan yaree tamit naka jekk Cheikh Abdoulaye mi ngi nettali ne sëriñ Tuubaa ba mu yëree alquran mu ne allahu wa rasuluhu a ay yurduuhu in kaanu muminin nee na ca la tàggu ko sagoom tëlatut dara booleetu ko dara muy alquran dafa wax ne yàlla ak yonentam kon ñoo gën a yaay ci ngeen sàkku seen ngërëm waaye ba mu jógee wuti yàlla nag suñu borom tabaaraka wa taala daal koy joxoñ yonent bi ne ko nag waatul bu yoo tamit abwaabiha ab nekk da ngay jaar ci bunt ba te kee mooy sama bunt muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne suñu borom moo ma tegtal yonent bi yonent bi womman ma nag ba ci suñu borom dallani llaahu ala muhammadin wa xaadani muhammadin lis samadi jaayante yonent bi nag ci di ko liggéeyal ubaayihul nañ ko yemale foofu bu subaa ñu jàll fas na lu ñu ci andi itam mu am cëslaay ñu indi fa ko Sëriñ binduwaay bind waaye wax rek ci defe kon ñoo ngi santaat mbokki jullit mbokki taalibe yi di leen def ci jàppale gi ñuy jàppale wax daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ba ci la ci lañ taxawale daara internat yi nekk Cees te ñoo ngi xalaata yokk incha allah